waaw alhamdulilah euh, Khalil tey dañuy sant yàlla parce que li tax ma ne dañuy sant yàlla euh, dañu ñëw seet si euh, ki ñuy wax madame Seynabou Niang muy coordinatrice plateforme Bay Sawar mais aussi di présidente GIE bu bu am am am solo muy réseau des femmes jàpp ànd liggéey ñun nag ñi fekk si leen fii parce que tey li tax ñu fekk si leen fii dañu ñëw seet si leen pour xool ndax calebasse bi ñi ngi koy doxal ak yan idée de projet lañu am pour xaalis bi nga xam ne ñi ngi koy dugal ci calebasse bi bés buñ ko tojee ñu xam fan lañ ko war a dugal ak nan lañ ko war a doxale parce que souvent jigéen ñi dañuy teg ay calebasse bu ñu paree yaakaar ne dañ ko war a denc ba tabaski jot rek ñu jënd ci seen i saaku pombiteer seeni i saaku soble yóbbu kër ga jënd si seen i jesneer ak rideau yi rafet alors que man dama ne toujours de liggéey la nga xam ne tey boo buggee jënd saaku soble di nga ci mën a jël jënd ko te du euh, yàq dara ci sa liggéey kon xaalis boobu nga xam ne tey ñi ngi koy natt ci suñuy leket ñun suñu innovation mooy que ne li nga xam ne tey ñi ngi koy def ci wàllum formation produits yi nga xam ne tey ñi koy liggéey muy des produits de qualité tay suñu leket yooyu du ñu permettre tay fépp mu ñu dem ci aduna, ñi mën a jënd suñuy stand dem foire parce que kuy wax kuréeru jigéen foire moo nekk ci xolam foire moo dee ci xolam mm. amatul xaar leket yooyu dinañu permettre ñu mën a assister ci FIPA la foire internationale des produits africains mais buñ ci jógee bu passé dinañu mën a permettre ñuy génnee suñu ay produits di lépp rek ci leket gi lañ koy jëlee parce que am nañu ay partenaires yi nga xam ne tey bés suñu leket ñom dinañu accompagner buñ ci amone ñaar ñom dinañ ci def yenen ñaar pour nga xamné dinañu mëna a jëriñ bu ñu liggéey delloo ndax femme yoy dinañ leen tagat ci lépp la nga xamné am ay produits de qualité la def ay emballage de qualité bañu compétitif au niveau international mais aussi au niveau national duggu ci euh, liñuy wax supermarché mais aussi positionné wu ci pharmacie pourquoi pas parce que tay kuy defar produit cosmétique bu baax wala ngay defar ay euh, dugup yi nga xamné euh, sunguf yi nga xamné tay xalé yi bébé yi dañ ci dañ ci dañ koy jëfëndiko lolu tay di nga mëna am li ñuy wax code barre ndax ñun dinañ la accompagner pour nga am code barre am nañu ay partenaire mais dinañ am aussi euh ay formation yi ya nga xamné dañ lay tagat pour que nga mëna xam fan ngay jaar pour am des produits certifiés inshallah rabbi waaw xam nga tay bu njëkk ba jigéen ñi amuñu won information bi war loolu moo tax ñu daan bàyyi seeni i produit ay nit di jóge fale bitim réew di ko jënd di ko yóbbuwaat bitim réew di ko defaraat def ci emballage yu mucc ayib ñëwaat di ñu ko jaayaat loolu nag jeex na fi parce que jigéen ñi macha allah léegi kenn mënatu leen nax ubbi nañu seen i bët ñi ngi formé wu en temps réel tey chaque chaque semaine yaakaar naa ne plateforme Bay Sa War mi ngi wër ci gox yeeg goxaat yi ñi leen di may ay formation yeneen kuréel aussi di leen di may ay formation ñoom aussi ñiy jël ci li nga xam ne ñoom ñoo koy nattal seen bopp di fayal seen bopp ay formation kon tey ñooñu war nañu am ay produits compétitifs au niveau international parce que tey kat jigéen ñi toogatuñu di jël seen xaalis di ko yàq mais dañuy jël tey ku leen may ñu ñu ñu defal seen bopp ku leen mayul ñu defal seen bopp kon jigéen ñi gàcce ngalama ñoom tey kenn dootu leen ñëw di naxati ndax loolu moo fi jeex. merci merci maa ngi tudd Adja bu Niang présidente réseau des femmes jàppoo ànd liggéey national et international waaw maa ngi dëkk cité des enseignants numéro 205. waaw formation ban njëriñ la ndax yow bala ngaa mën dara na nga formé wu. parce que loo jàngul doo ko tari bala ngaa mënil def dara fexeel ba ñu former la nga jàng ndax mën a tari ndax lépp looy def te jàngoo ko rek yàq nga ko moo tax bala ñoo jublu ci dara nañ jàng ba noppi waaw moo waral nag formation yi macha comme ñu ko waxee rek suñu réseau bi dafa ëmb lu bari dafa bari forme de formation dafa bari forme ñi ciy liggéey parce que boo xoolee tey nii céréale locale transformation ngi ci ñuy liggéey ci géej ngi couturière ngi si lépp ngi si même tool sax am nañ ko gis nga ma teg fële légume bi dañu am tool sax di béy moo tax moo ëmb réseau bi nii te formation yi rek tubaab focal la ñuy jël te lii boo jàngee ba mokkal da ngay dem jaayali sa bopp te boo ko jàngul doo ko mokkal ba am ba mu am njariñ loolu tax ñuy formé wu boobu nag dinaa ci taaw tuuti ndax liw bi liw bi ndax yàgg naa dem rek mais plateforme Belsawar daanaka bu ma nee dix moo ñu may setti ndax moo ñu jàngal moo ñu tette ndax njëriñ dëgg ci nekk ndax soo ci duggee loo xamul woon di nga ko xam foo egg woon di nga ko fa egg loo mënul woon te xamoo ko di nga ko xam grâce à maître Fabira plateforme sawar dañ koy sant rek tabarakalla madame Diouf Ndeye Ndiémé Guèye directrice de la piscine olympique nationale. Mais aujourd'hui, je suis là en tant que euh, femme. C'est toujours un plaisir d'assister à ces genres de rencontres, surtout organisées par les femmes. On taxe souvent d'être féministe. Moi, je suis avec les femmes. Surtout quand il s'agit de, de les former, de les aider à être autonomes. Vraiment, c'est pour cela que je suis présente. C'est ma sœur Fabrica qui m'a invitée. Voilà, vraiment, c'est... Et que je remercie énormément. Parce que moi, je travaille avec les femmes dans la Médina. Donc, je suis venue voir, surtout avec leur exposition, avec des produits vraiment euh, qui sont très prisés sur les marchés. Je pense qu'elles ont été bien, bien formées. L'autonomisation de la femme, euh, c'est est-ce qu'un sacerdoce donc, pour tout individu au Sénégal Alors donc vous en tant que femme également, et vous êtes à la tête également d'une institution, vous avez apporté quand même une touche vraiment bon à leur... Oui, oui, je travaille avec plusieurs calabasses à la Médina, parce que moi je suis née dans ce quartier et grandi. J'ai vu mes sœurs, euh, mes tantes euh, s'organiser ainsi. Donc je ne pourrais que suivre leur pas et aider les femmes à, à, à être autonomes. Surtout pour les formations, je travaille souvent avec euh, Madame Sam, directrice de la FODEM, qui m'aide beaucoup sur la formation des femmes. Donc, euh, en, attendant le, deuxième, euh, comment le deuxième session du mois. donc on verra. Ah, bien sûr, je pense que la femme est tout et tout. La femme est maman, la sœur, c'est eux qui s'occupent des maisons et tout. La femme doit être autonome. Voilà. je, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis là parce que je suis femme. Voilà. suis ngi jigéen laa moo ça ma teew fii sœur ma ñëw fekkee ndaje bi en fait je suis venu regarder comme tout le monde regarder l'exposition et tout parce que peut-être famille ben may àndal euh, formé nañ leen mais jotaguñu def exposition ñu préparé benn foire ak Fabira ndimbalu Fabira parce que xëy na moom moo may taxawu di ma dimbali parce que yàgg na ci puisque lolu mën na leen jural lu bari parce que tay jigen bi nga xamanteni ne li ñuy soxla ci kër gi yépp ñu ngi koy defar donc buñu koy jaay dina gën a yomb buñu koy jaay seen biir dina gën a yomb parce que li ma fi dégg léegi tata bi wax ko c'est tellement intéressant donc lu mel ni et ainsi de suite loolu bu ñu amee espace rek dinañ ko mën ak ku leen teg loxo aussi voilà waaw ñu ngi leen di xaar parce que souvent dinaa gis euh, yenn euh, jotaay yi ñu ciy wax ainsi de suite mais ñu gën ko euh, gën ci farlu daal voilà parce que jigéen ñi ñoo ne ci kër yi li ñuy gàddu yaakaar naa ne góor yu bari gàddu wuñ ko voilà. Merci, madame. Merci beaucoup.